wax sa xalaat teg euh, ponk yi bokk na ci ñetteelu mandat bu ñu daal di yëkkatiwaat ci penc bi ak yët lu jëm ci wàllu coowal mbuusu plastique yooyu ci 88 628 98 98 33 825 18 30 la ñuy sàkku ci yéen bu fekkee ne am na ku ne ci ligne bi ñuy jël ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bi noo tudd a fooy woote. ñoo ngi lépp tur ñoo ngi wootee Tëngéej ñoo ngi ziare présidentiel bi waxoon naa leen fii ñaar yoon wote naa fi. ma ne leen ñi ko bind nañu ko bindee ñoo ko fay bind ko noo xam ne lii day indi coow ci réew mi ñooñu sax damay wax ne duñu ay patriote hmm. parce que bu ñu nee mandat de cinq ans renouve euh, renouvelable une fois daal di yem foofu loolu mooy euh, mandat bu sept ans bi bokku ci ñoo ko bindee noonu mënoon nañ ko leeral daal di ne mandat bi du sept du cinq ans. Euh, ci la waaye dañ ko ci boole. mu ñu lu ñuy wax clause transitoire donc ñu ko bindu Ismaïla Fall ak ñu ku mënti doon ñoo ko tey nga réew kenn du ko fowe ak fowe doomi réew mi te ñoom noon la nekk président bu ngeen ko déggee muy wax sax da ngeen di dégg toujours mu ne la durée du mandat est de cinq ans donc hmm. waxul benn yoon sept le bële te kii cour suprême président moo leen defe naa moo leen nommé dañu ñoo ko bindee noo xam ne ëllëg dañ naan nañ dem cour suprême bu ñu demee suprême ne ah yoon lii la wax mooy nañu ko bindee donc ñii nga xam ne ñoo ko bind dañuy foy réew mi ñu ñu jiite dañuy foy réew mi fonk ñu réew mi fonk ñu doomi réew mi réew caaxaan yoru ko lii bu si nga tamit député yi kenn du ñoom ñenn ñi nag xamuñu dara sax te teg si fa mais responsable parti yi fi nekk lii waroon nañ ko xam gis nga dañuy xaar ba ci pandew jo ñu ne waaw nañu dem fële ci conseil ci cour suprême bu demee conseil constitutionnel pardon conseil constitutionnel ah yoon yu kat waxul sept ans yu cinq ans tax muy wax lii la ñu nar a def réew bënd ci coow dëkk nga wallaay man j'ai honte dama rus mais dama am naqar parce que dañuy fooy réew mi réew kenn réew mi waroon mérité na leneen lu dul jox ko ñoo xam ne dañu ay constitutionnel constitutionnel ça veut dire quoi constitution ay statut la rek moo ko ab daayira bu ñu defal ay société mayam laajul France mhm. jërëjëf ñu daal di jël keneen ci 88 628 98 98 salaamaaleykum. Alaaji Ibrahima Diop wala Ibrahima Ndiaye. Alaaji Yankoba Diouf. yaakaar naa caa de moo lay ziar. ngeen di wax ci seen ñetteelu mandat bi. waaw dama ne. ah. 9 h da xanaa jot na fële ca seew ak euh, ndondol. E, jàpp jàpp Bourdi. Mhm. di ziar euh, bu wax na Gambie. ñu mhm. koy wax Ablaye Faye xaritu chauffeur yeeg emprunté di saar alaaji Saasi Mbuub bu baax rafetlu laa nag xalaatam. Hmm. Saasi Mbuub fële ci xombol. xombol eh, la sa dooleeku mooy man maa ngi ñëw rek. ci hmm. ñaari du ma wax mandat ñaareelu mandat wala dama naan. Hmm. ñetteelu candidat bi wala ñaareelu candidat président Macky Sall loolu laay wax man. Eh, la ca dolliku la ma doon wax daaw ak daaw jéeg rek moom laay waxaat ren ji yal nañ yàlla may ñu fekke déwén alaaji Ibrahima nañu bàyyi yee fitna ci wax nañu bàyyi yee fitna ci jëf. fitna xajul ci kenn. nguur kenn du xeex ak moom la ngay bëgg a xeex moom. Hmm. man nag bala maa àddina sàppi ñu ne opposition bi wala ñu ne Ablaye Wade la mu fa defoon ak li mu fi waxoon loolu loolu jig ko wala jigu ko man dama ne président de la République amul opposition ay noon la am wala la preuve fu nekk la ñuy génn fu ne la ñuy waxee dama ne Ablaye Wade ak président Macky Sall bokkuñu aadama bokkuñu aw bokkuñu politique bokkuñu fit bokkuñu xalaat bokkuñu xam-xam euh, li wolof Njaay wax rek naan xeer li ko jig ca naaj wa jigu mooy diggante Abdoulaye Wade ak président Macky Sall dama ne askan wi seen wàllu bopp suñu soxlaatee président Macky Sall cinquante ans ci kanam mu dirite réew mi euh, réew mi dañ euh, population bi dañ ko jël ñaareel ba loo ñàkk ñàkk ñàkk xam-xam loo ñàkk ñàkk xalaat xam nga ne euh, cinq ans yii passé bokk ci mandat président Macky Sall yi mooy yii mu nekk nii ak yee di ñëw te bu soobee yàlla président Macky Sall dañ koy fal à ginnaaw bu loolu passé xalifa sall kul mu yàlla na fi yàgg fi tëwër ànd ak wër ñu daal di jël keneen ci 88 628 98 98 bi ci réew 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. aha almahdi wu. na ngeen def ça va bien. sant alhamdulilah. très bien merci. aha euh, bon ci coowal troisième mandat bi laa bëggoon wax. acca yaa ngi ci biir. donc parce que pour man président Macky Sall. Mhm. mënul nekk ci deuxième mandat te noppi xam xel ne def ñetti mandat ci bopp réew mi waru ko ñu koy nangul droit bu mu sakkoo deux mille vingt quatre beneen mandat même bu fekkee ne durée premier mandat de sept ans ak durée deuxième mandat de cinq ans dañoo wute. Hmm. kon bëgg na vraiment mu leer dès à présent ne candidature président Macky Sall pour troisième mandat en deux mille vingt quatre sañ-sañ bu ko ko mën a nangu ci yoonu dëgg. taxawul ci suñu réew car il est bien précisé que le mandat du président de la République n'est renouvelable qu'une seule et unique fois hmm. kon war na ñu ragal yàlla ñi nga xam ne moom moom nguur te bàyyi wax waxe ci bopp réew mi ndax mooy jur bëggu nguuru dong te noo liggéey liggéey réew mi parce que bëggu nguuru dong moom moo waral loolu mais du problème mu liggéey réew mi parce que moom dong moomul réew mi moom dong euh, ëpplewul xam-xam euh, ñu dëkk ci réew mi jërëjëf. jërëjëf. jërëjëf Almahdi woote ca Kaolack ñu daal di jël keneen bokk na ci lu ñuy waxtaanee ci wala ñetteel mandat bi aha asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi noo tudd woote. Oustaz Adama. aha. Jibril Sène la. Jibril waxal ñu sa ginnaaw ne yaa mujj. waaw kon gars yi mën ngeen a lonki waaye Adama kat nee na mbir mbir mi fu lañ koy daggee bu soobee yàlla bu subaak jàmm. bisimilah. ginnaaw bi ñu nuyoo di jot jottali nuyoo waa nax neex mhm. waa Ndengaleer waa Nduuf Mbar Jaak Jokkul Njuufeen ak Njenneen Njoxu ak Bawol gépp ci rafetlu émission bi. Oustaz Adama. Jibril. réew mi de war naa gënal ku ne lu ne. maanaam nag ay privilège bu jarale ñenn ñi ñu bëgg taal réew mi. képp ku bëgg a taal réew mi walla nga indi jafe-jafe ci réew mi hmm. yàlla na ko yàlla fànq lépp lu nit yéene réew mi daal yaa nga la na nga ci jiitu bu dee lu baax yàlla na nga ci jiitu bu dee safaan bi yàlla na nga ci jiitu ñi nga xamante ni nag xam nga président Macky Sall le malheur mooy lan amul ay militant ay altoppe am ay nit ñoo xamante ni ay bouton lañ rek ñu leen di pousse Mbaye Ndiaye li mu wax président ko wax loo de hmm. parce que ñeneen ñi wax le contraire dàq nañ leen ana Moustapha Diakhaté ana ñeneen a ñeneen ñu wax le contraire dàq nañ leen lu tax moom mu wax waxu troisième mandat te kenn dàq ko kon dañ ko wax loo mbir mi nag gis nga président na xam ne yàllaa ko fi teg su fi waree jógee dina fi jóge waaye bu bëggee forcé dina fi jóge te jógin ba day ñaaw olof nag am na lu mu wax baa doon la xamul njowaan dañ koy joow muy jowaan waaye gis nga opposition bi ak sénégalais yi ci moment bii nga xamante ni ci lañ commencé di wax waxu troisième mandat ci lañ war a jóg jatu nuy soccet ne du fi amee ñu ci taxawee fii ak ñetti weer jëm at dinañ kenn dootu fi waxati waxu troisième mandat mais moomuñu nit ñi constitutionnel yi nga xam ne nag ñoo tënk lii ba maanaam mu mu war a mën a yeewtu beneen troisième mandat ñooñu yàlla wax naa ñoom ci Issa Dia munaafiquun yi naa naafeq yi parce que alal la leen jaral ñu taal réew mi ak ay privilèges yu kenn xamul yàlla. jërëjëf Jibril seen ci moom la ñu yëkkatee jotaayu xibaar yi ak wax sa xalaat ñu doon waxtaanee ñetteelu mandat bi daal di jibaat ci pénc bi bàyyi ko ci mouvance présidentielle rawatina ci APR ak yëttu ci wàllu mbuusu plastique yi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ci teewlu bi nga doon teewlu seen rajo xibaar yi service commercial nga ni taxaw bu 10 heures jotee kii di ajaratu Ndeye Khady Diop ñëwaat ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français.